<laughs> boobu maa ngi gën a nekk ndaw parce que man si privé laa si privé la gën a liggéey ndax liggéey yu bëri pour la promotion xam nga liggéey naa aussi bitim réew bitim réew def naa fa ay at yu bëri balaa mais ñëw Sénégal mais nag euh, à l'époque ministre Omar Gueye dama nekkoon conseil technique au si ministère des pêches de l'économie maritime cest à lépp luy chantier lépp luy liggéey si ministère bi man maa ko yore woon te loolu joué woon na un rôle majeur si si lu yëkkati ministère bi si wàllu napp léegi nag euh, marché central au poisson directeur bu fa nekkoon sama mag fa Ndiaga Thiam yàlla na ko yàlla yërëm génn àdduna marché bi nag bëri jafe-jafe léegi nag euh, mareyeurs yi woo ministre bi ne ko ah suba suba suba soo indi indilul directeur dootu nu fay juuti ndax marché bi moom vraiment amatul kilifa boobu directeur bi génn na àdduna ma xëy daal fajar di waaj a dem mission rek garde de corps ministre bi woo ma ne ma ñëwal bu ministre gaaw ministre ma ñëw mu ne ma bon marché poisson il faut nu am kun fa yóbbu ah mais yow daal dem fa nga toogandiku fa rek en attendant quoi donc toogandiku ma ne ko c'est-à-dire mu ne ma bon pini Pikine dafa compliqué marché bi dafa compliqué yow demal rek nga toog fa nga gérer le temps président Macky Sall di wut kenn ku mu fa teg euh, si Pikine et cetera bon ma ne ko ok léegi ma dem mais jour bu ma njëkkee dugg si marché bi awa dama tiit ma ne mais ministre bi man vraiment ministre bi bëgguma man joxuma port joxuma dara di ma marché bi boobu soo duggee si marché yi sax yi mi ngi tëmb ay bot la nit di sol marché bi insa insalubrité bu doy waa ma ne daal ministre bi ma ne bon ay garaaw yàlla baax na xëy na loolu la ma yàlla jagleel ngoon si ma dem bureau ngoon si bu ma jëlee service ma dem bureau ne ko mais monsieur le ministre xanaa di nga ma jox moyens yu bëri ndax marché bee ma gis moom dëgg yàlla il xaalis bu bëri mu ne ma wu abu bul dugg foofu baaxul xaalis moyen amu fi xaalis am yow toogal a gérer en attendant ma ne ko ah ok d' accord man xam nga ministre seen bureau yi day rëy ma génn le temps may génn di dem pour bunt bi sama xel am si lu mu dem ma ne abu yow abu yow yaa ñàkk fayda yow ni ngi lay ubbil bunt ni ngi lay may ay opportunité ngay wax ay non nangam nangam sama xel dem si benn borom xam-xam bu ne gis nga manager dëgg suñ la dénkee bërëb téeméeri fan munoo fa indi soppite bàyyil ndax yow doo waaj ma wàññeekuwaat mu ne ma abu dafa am loo fàtte moom abu la ma daan wooye ma ne ko monsieur le ministre 100 jours su ma changé wul marché bi bàyyi ba wutal keneen man nga bàyyi ma ma nekk sama liggéey mu ne ma abu attention 100 jours bëriwul de te moyen amul ma ne ko baax na trois heures du matin laa daan xëy di wàcc vingt deux heures pendant trois mois maa daan obbi parce que marché bi trois heures du matin lay ubbi munoo bëgg doxal dara te ñëwoo di fekkee loolu nu muy doxee ma daan bale di fobeere di waxtaan ak acteurs yi parce que marché soo ko bëggee yore il faut nga fonk ñuy liggéey si marché bi bañ leen seexlu bëggal leen seen bopp mais may dafa fu am fu am euh, nu nu euh, ma ne leen soo leen bëggee marché bi baax parce que tey soo bëggee euh, labat jigéen nga romb ko mu takk mu xeeñ tilim mais kooku doo sawal dam labat ko bii këram mm-hmm. mais soo rombee jigéen mu civilisé set organisé da ngay ne ah kii de bëgg naa dugg kër xaram waxtaan ak moom marché central noonu la dañoo war a wane xar-xar ak kanam boo xam ne nit yi seen xel day dal suñ fay ñëw parce que soo demee bitim réew marché yi dafa set mm-hmm. ñu lu tax ñu war a jagleel suñu bopp saleté désorganisation et cetera non mais effectivement yàlla dimbale ma fu amoon mbalit nu daf fa ay fleur fu amoon jafe-jafe fu nit yi laloon anarchiquement nu déplacé leen yóbbu leen feneen ministre bi fu mu ñëwoon ak gouverneur sol fa ay bot di mache bi man boobu mu ñëwee si 100 jours yi dama ko invité 100 jours yooyu ma ko waxoon dama ko invité ma ne ko monsieur le ministre maa la waxoon 100 jours ñëwal nga xool marché bi mais boobu mu ñëwee tapis rouge laa ko lalal loolu mu nekk d'ailleurs sax si leen ma confirmer sax au poste de directeur du marché parce que intérimaire rek laa woon mais mu nekk souvenir yu neex ndax Sénégal lii la mérité te pourtant lii yëpp dama ko def sans accompagnement de l'État amul un franc boo xam ne rek ministère wala état jox na ma ko pour nu moderniser marché bi dama jël xaalisu marché bi rek delloowaat ko si marché bi euh, bëggal ko sama bopp di ko toppatoo marché bi di xeeñ neex am ay espace vert loolu nag la Sénégal mérité moo tax yàlla nañ jëm si marché yu moderne yoo xam ne peuple sénégalais daf siy gis boppam